salut les amis ziar bu baax a baax nuyu naa leen kenn ku ci nekk ak foo munti nekk di ñu déglu dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees ci kàllaamam wolof. alors tey nag dañuy dugg ci sunu troisième saison waxtaan ci benn thème bu am solo maanaam jënd ak jaay sur internet ñu koy woowee commerce en ligne wala e-commerce alors pourquoi ñu war a waxtaan ci e-commerce parce que Sénégal bëri na ñoo xamante déjà e-commerce daf mais aussi ñu ñëpp aussi que le Sénégal bëri na ñoo xamante ni amaguñu surtout ci jeunesse bi donc ñu dañuy orienté wu ci commerce di jaayantu di daan seen doole pour mën alors am na ñoo mais seen salaire réalisé leen ñu Nous a réaliser lépp loo financièrement donc da ngay liggéey ba pare am benn business à côté pour mën a satisfaire say besoins mais aussi am na ñoo xamante ni commerce mooy yàgg nekk seen métier depuis des années comme commerçant yu mag yi nekk ci marché yi marchand ambulant yi euh, commerçant yi nekk ci koñ bi ñiy jaay cosmétique ñiy jaay supp maanaam ay mboq ay dugub ci koñ bi ñiy jaay mayga jaaykatu café Touba bi ak ñeneen ak ñeneen alors ñooñu ñëpp nag li leen boole mooy dañuy jaay soxla nañu am ay clients yu bari yoo xamante ni dañuy jënd ak ñoom mais aussi soxla nañu xam naka lañ war a organiser wu pour que seen business gën a jaar yoon. de l'autre côté aussi ñi nga xamante ni ñooy jënd maanaam clients yi soxla nañu gis ay produits yu bari mën leen jënd ni mu gën a yombee mais aussi ni mu gën a gaawee alors jamono ji ñu toll nag nouvelle technologie dafa yegg si maanaam internet bi ordinateur yi. téléphone smartphone yi application mobile yi loolu yépp nag indi ay solution ak ay jumtukaay yoo xamante ni jaaykat bi da koy jëfandikoo pour gën a mën a gis boppam ci li nga xamante ni mu ngi koy def maanaam réussir business am donc nouvelle technologie yi ñëpp la fi nekkal jarul ragal parce que amul dara lu compliqué soit da nga koy comprendre utiliser ko ci li ngay def wala comprendre loo ko nga ut koo xamante ni xam-xamam màcc na ci wàll wi moom mu ànd ak yow ngeen jàppante ngeen liggéey pour que seen business dem ci kanam. alors loolu nag moo nekk temu saison 3 bii nii maanaam naka utiliser nouvelle technologie pour def commerce sur internet saison bi nag dina am ay épisodes yu bëri dinañu ànd étape par étape waxtaan ci ay points yu bëri tey nag ci premier épisode bi avant ñuy dugg ci wàllu technique bi wàllu plateforme yi ak yu demee noonu dañuy waxtaan ci lan mooy e-commerce lan mooy e-business mais aussi lan moo nekk seeni avantage